ɓeɗo jiinilam abiɗe rafina sofeyde fin harite mawɗo jiinilam abiɗe rafina sofe dal jàmm yaa ngi pour waaw nice lii nii nga takk yi nii pour bëre woo bëre waanoo yaa ngi takk noonu la demee maay bëre yow waaw lis mooy daan mais maay bëre mais gars yi nee am ngeen bésee lan moo leen ci Tapha Mbeur waaw yow ñun ñu yàgg am bis suñ premier combat ba combat bii nii ñun yàgg nañu am moo raw ci bis yi nag la raw. barki yàlla rawul si bis yi. bilaay moo. dama dégg sa frère mu ne da ngay corriger. waaw. nee na Tapha da doon wax naan ku jekk sa morom yooyu mais nee na fii lay fii lay. ku jekk sa morom dindi sa put. waaye yooyu gaañ loolu dafa dangereux de. waaw yow dangereux ngeen di wax. waaw yooyu la wax te yooyu méttiwul. yooyu méttiwul. non non lan ku ñu dindi sa pot da ngay wàcc defis waaw. Eh, ngay wàcc defis kenn waxatu sa yow. defis ngay sax doo fa egg. doo fa egg loolu mënoo kaa xam. mais wax moo xaw a diis man du ma comprendre quoi. moo tax man naan la Tapha Mbeur ingi man li la. na dégg Rando Saro xale bu ndaw moom dama neex waaw. xaw ma looy wax nii mais am ngeen bés man yooyu wax nii yëpp comprendre ma ci zéro. barki yàlla du bis bilaay walaay taala. foog naa ne bés ba laay comprendre. non du bis sax. ah ci la. ma kaa xam rek. kañ laay comprendre. bëy du tokku booy. bëy du tokku booy. ah léegi ko tëkkoo luy xew. ah day mujjee daw di bëy. soo bëreetee sax mu abal la. bëy gaaw na de bëri nay feem. waaw moo tax warul tokku booy bëri ay feem. booy daa sob booy dafa sob xale màggetub Guinée màgget màgget loolu yëpp ay détail la màggetum Guinée lu mu màggee ma day dese coŋolon ko ah, waaw loolu dawul sama yaram teeyul sama xel ki xale la su ko daane day muñ demaat defar waaw kende mer la fanaanoo da ko ci defet defet boo xam ne waru ko woon am dañoo jugee si victoire xonet mer jugee si victoire xonet loolu koo xam ne ñun ñoo ko mën ñu daan kon yéen da ngeen bëgg a wax ñi leen boole yëpp yéen a leen mën. suñ ko daanaatee sa xool loolu la ñuy wax kii ñuñ ko boole ñëpp moo leen mën. mais demu leen ci làmb ji ba pare bëgg a daan. avant ñu dem yëpp la daan. mais dama dégg mag naan jóge ca làmb ja di baax moo gën dem ca làmb ja di baax. mais mag ñi léeg-léeg nag day am foo xamante ne dañuy xaw a juum ah, man balaa maa doo dem si làmb damaa doo baax. ba ma fa jugee baaxuma. waa comme gis nga. balaa ngay dugg si géew bi sax da ngay bàkku ba pare. sëñ Bamba waaw. ñu tëgal la lu neex nga fekk. soo demee après moo loolu soo fee génnaa da ngay bàkku. Alice ñu waxtaan dama gis benn boy. buy wax fiis de Lirou. fils de Lirou nee na mën sa mag mën aada faas. xaw ma jël lépp moom mën na jël lépp. xamoo fils jël lépp moom mën la waaw waaw moo la mën moo mën liis moo mën aada fa na jël dam. yàlla baax na yàlla na dam ay morom. moo mën nooy bëree koo mën. day am ah yéen yéen a ne a mën Tapha Mbeur. ñoo ko mën. waaw yéen te moom. mais moom nee na moo mën daf may damb. na dem xool koo xam ne du ko damb. nee na nee na yow la bëgg a damb. xaw ma ko xamaatu ma ko. te bëreew ma ak moom. waaw yow liis léegi foo yaa ngi juum de Laurent wala Liss. Laurent Laurent waaw Liss ay maa la ko ah, bu mais. non bu ma corriger gars man munoo dox si sama maay di ma corriger. bàyyi sa yooyu. non tur yi ngay jaawale la. non ak Laurent yëpp benn la. waaw comme 500 la waaw 500. 500 Christophe la ñaa miliko man maay Etienne sama tur dëgg. Oh, sa tur dafa bëri de. ma sama tur. tur dafa bëri Etienne Etienne. la ñaa miliko. loolu dafa compliqué. waaw moo tax doo ko nëbb daa compliqué. du ma nëbb sama tur dëggangoo gratuit. waa léegi ban combat la ñuy dox. Malaw Seras neen daf may may chance mujjee daan Modou Dia. yow looy wut si Malaw daan Modou Dia. da nga daanul Modou Dia yow barki yàlla yow léegi. Malaw moo daan Modou Dia. yow wut kii laajteel kii. yow doo jël laajteel kii. ah xam naa. waaw dem sa morom yi ngay dem si kii woo maa law paalaw na deux ans bëriwul. waaw yàqu daaw la lënd la. mais dañuy bëre maa ngi moom. ah mais salaamaaleykum. bon appétit. waaw man yow suñu waxtaan mënul kii quoi. merci sama